yàlla ñu yàlla dool sutura. <laughs> amiin <laughs> Sénégal mooy dëkk boo xam ne. <laughs> Eh. maak yow dañuy toog di wax ne lii moo baax ci ñun yow nga wax ko xulil. Mm-hmm. man ma ne la non non da ñuy sonal. mooy Sénégal. Mm-hmm. am na koo xam ne day nekk ci administration bi parce que moom li maa wax intéressé wu ko daf kaa yàpp ne daf kaa yàqal. Mm-hmm. mu ne lii noo wax nii waxi dof la lii du waxi nit te fekk moom moo nekkul ci dëgg. loolu mooy Sénégal. Sénégal mooy réew boo xam ni il y a des choses qu'on doit nii daf fi baax. ration alimentaire kër gu nekk daf ko war a am gis nga ni ngay demee defi ay provision defi achat loolu da Sénégal war a dundee te niveau boobu li nu ko a permettre mu ngi suñu dëkk effectivement léegi est-ce que dañoo war a continuer ñu ne non imaginez un Sénégalais tu lui dis oui dañu war a bàyyi Banque mondiale ak FMI mu naan xoolal kii xoolal kii kii nit la kii xamul sax li muy wax te pourtant loolu la Mali def loolu la Mali. Mhm. fi ñuy wax nii xam nga qu'est-ce qu'ils en train de faire. Mhm. sama kilifa bi man Mansour Diagne bu Tokyo moo ma koy waxaat. le Mali est en train de traité ils ont signé une convention avec une entreprise chinoise ça va leur xaw ma ñaata millions de dollars par weer ou par an ci lithium. lithium rek. ñun am nañu ko. bu baax bu baax. on doit en parler. Mhm. on a parle pas. parce que dafa am am ortium am am. xamalu tax euh, est-ce que xam a qu'est-ce qui nous arrive. Mhm. ni administration bi nekkee administration coloniale sunu professeur bi Mbaye Thiam di ko wax. Mhm. mu ngi kaa nuyu sunu baay boobu ni mu ko dénoncé mais administration boobu mooy fonctionner ba tey dañoo mel ni ay tubaab yu ñuul ñook ñu ne yem tubaab yu ñuul lu tax ñu doon tubaab yu ñuul parce que vive de privilèges. Mmh, vie de privilège boobu moo waral benn Baye Assane day nekk xale naan woy man su ma màggee dama bëgg a nekk magistrat man parce que magistrat moo ëpp xaalis. su kër yi noonu la ñuy waxee toog ci bureau yi waaw way way <laughs> pilote xaalis. alors que alors que dëkk bu avancé xam na lay demee. Mhm. man je veux être menuisier ébénisterie je veux être tapissier que daf loolu daf ma neex passion boobu te boo boo boo liggéeyee liggéeyu passion. Mhm. yàlla ci lay def barke. mais boo liggéeyee liggéeyu ah. xaaral ma dem toog ci rajo bi wax télé ndax mooy tax ma siiw am xaalis. Hmm. doo am dara. Hmm. la réalité. Hmm. mooy que dans ce te loolu nañ ñu ko may. mais sénégalais xam naa xanaa am na droit toog ne man damaa bëgg sama àdduna neex. waaw xanaa sénégalais sañ naa am droit toog ne man damaa bëgg euh, su ma bëggee jënd dara ma jóg dem jënd ka xanaa sénégalais sañ na toog ne su ma xiifee damaa war a lekk. su ma maree damaa war a naan. te ndox mi ma naan dafa war a baax. mais ndox mi maa naan dama kaa ragal damay dundee psychose ndox mi ndox lan la parce que Sabrina Soussan mhm. mi wuutu Bernard kami fële ca groupe Suez moom mooy jiite groupe bi nga xam ne ñoo ñuy jox ndox jël entreprise bi tuddee ko Sen'Eau bëgguñ ñu sax ànd ak ñun waxuñu Suez Sénégal. Mhm. non dañ naan Sen'Eau ñun ñu jàpp nañ ñun noo ko moom alors que ñun moomuñu suñu ndox. <laughs> foofu loolu te loolu wax dëgg yàlla dañ ko war a wax ñan ñoo ko war a wax du ñun de. Mhm. xam nga kan moo ko war a wax. l' administration sénégalaise. mais l' administration sénégalaise nana cure ñi mel ni man carriériste non liggéeyu wàcc je suis bi bureau signé c' est quoi ministre lu mu wax ah d' accord il faut signer même bu dee li may signé baaxul ah ministre bee ko wax ah ma signé je n'ose même pas défier le ministre parce que lii lu bon la. Mhm. taxawal sama réew. te faw nu dem foofu ministre nee na naa signé ma ne ko ministre lii waruma ko signé parce que techniquement. ci sama profession li ma jàng lii waruma ko signé ministre bi ne ah bon bon kooku on va régler ça ministre bi su demee ci premier ministre ne oui ce gars ce gars là il me défie il veut pas faire le travail premier ministre dafa ko war a wax mais qu'est-ce qui se passe. lu mu ne ko non lii ak lii bu waxee ba pare. Hmm. premier ministre woo kooku ne ko qu'est-ce qui se passe mu ne ko ah mais monsieur le premier ministre vous pouvez nous confronter ce n'est pas possible ça je boobaa day jël ay responsabilités xam ni kii du ministre bu baax. Hmm. ñu wàcce ko ci sutura. <laughs> foofu lañ war a dem. d' accord d' accord mais mais mais Paasan sànq. français yi tant que defuñu coopération militaire bu forte. Mhm. sécuriser suñu dëkk. Mhm. parce que dañoo saay-saay. sécuriser suñu dëkk base bi nga doon tudd. nañ leen fi jëlee ñu jëlee leen fi. Abdoulaye Wade réussiroon na ko ah. Macky Sall ñëw dugalaat leen fi. indiwaat léegi quelqu'un me dira ouais mais ñun on n'a pas de moyens xam nga incendie bu amee fii ñoom ñoo ñuy dimbali. regarde cette façon regarde de réfléchir nañ ma baal li gën. Mhm. dem leen ngeen laaj. Euh, lu tax may attardé wu ci possibilité bi ñu am ak la Russie. Mhm. ñenn ñi ne ma non américains yi ñoo gën parce que américains yor nañ xaalis yilifa mag wax na ma ko man kaa nuyu ne ma américains dañu yor xaalis donc ils peuvent nous aider sur beaucoup de choses et ñoom li ñu soxla mooy le fait que Sénégal jàkkaarloog Amérique par l'ouest mhm. le nez de l'Afrique fait face aux États-Unis mhm. alors oui mën nga ko dégg mais ki nga xam ne moom moo moom moo nekk ki nga xam ne moom dafa doy la mu am te soxlaalu dara le seul pays bu am loolu c'est la Russie. mooy Russie maanaam tey lu Afrique am ci richesse. Mhm. Russie am na ko ba mu doy. loo fi dégg or diamant lépp Russie am na lépp ñoom mosuñoo dem di coloniser kenn. Mhm. la Russie n'a jamais eu de colonisation mosu mhm. ko dundee ñi kaa dundee mooy ñaamul dara seen dëkk. waaye léegi man ma ne damay dem collaborer ak ki nga xam ne am na daraam dara dëkkam li ma yor du ko doyee dara. ñu ne ma non non non duñ fi jëlee kii indi fi kii du question jëlee fi kii indi fi kii nenn bay bañ kooku. Mm-hmm. toll woon nenn kon ku bon ki nga nangu tey. mais war nga xool sa sa avantage. sa mm-hmm. kon war nga mën a bàyyi ku bon ki nga nekk tey nekk ñu ne c'est des relations séculaires <laughs> alors que yow waa ji lépp lu lay avancé mu ngi kaa lépp lu mu war a doxee tubaab yi ba ñu soxlaa Qatar dañoo dem fekki leen sukkal leen raamal leen. Mm-hmm. di leen liggéeyal. ànd ak américains yi di leen liggéeyal Qatar di leen fay du kaay jël nga am ci lii de am ma fay la lii maa moom baa ko soxlaa kaay lan nga bëgg. Mhm. ok ti doon le prix mais nii laa la koy joxe may teg sama ay conditions jaaykat kay moo naan nii laay jaayee. Mhm. waaye yow nga yore sa dëkk te waxuloo nan ngay mën a jaaye tubaab bi domine la téye sa économie imposer la ay prix ñëw Auchan nax la nga exonéré ko soi-disant des années mu jël daal di yombal ay prix départ dem leen laaj Auchan léegi lu ñoo jaayee. ñoo ñoo eh. ñoo seer ba romb seer. <laughs> parce que looloo fi nekk léegi nag tey li gën a gaaw mooy amal possibilité yow Auchan fu mu nekkee nii am nga sonaa Sonadis ci koñ yi. Mhm. qu'on mette des Sonadis ci koñ yi sénégalais yi di am ay produits foofu am la choix entre ñoom ak Auchan état bi renforcer leen. dooleel leen mais loolu pour nga mën ko. Mhm. foog base militaire française yi jóge fi pour ces bases laa jóge fi foog nga am coopérant coopé. koo xam ni day nekk kuy ñëw di coopérer ak yow nekk ku maandu ku am doole allez demander à Faustin Touadéra ca Centrafrique qui le sécurise c'est la Russie bu du woon loolu tubaab yi def ko lu bon tante dañ coup d'état ñaar ba ñetti yoon pour faat ko. antuwul Centrafrique jamaa kese la tubaab yi jamaa bañ fa doon jël mënatuñ ko fa jël seen xol di bon moo tax ñu jël seen média yi. 1 2 3 oui euh, Wagner 1 2 3 Prigogine 1 2 3 oui Poutine nangam ak nangam. pendant ce temps Israël fait pire la France appuie. Mmh. donc ñun on doit être regardant par rapport à tout ça. Mhm. nekk ci loolu changé donne bi mais bañ nekk ci factuel rek oui le ministre qui vient nous avons signé des accords avec le Fonds monétaire international def ko ci télé bi RTS def ko à la une ñu ne quartier la ñu nekkoon mais kon nu bàyyi lépp. uti nationalité. dem uti leneen <laughs> ci loolu sax booy tax parce que sànq comme comme ni ñu ni ñu ko ni ñu ko waxoon sànq ah, mais euh, Ousmane Sonko ci discours am euh, la fois parce passée boo koy dégg dafa mel ni que ba tey wax naa soogul le fait que euh, li fi jotoon a jaar le président de la France Emmanuel Macron noppi woon ci ni Thiel dafa mel ne loolu plus la boo xam ni ba léegi wannagu ko. mais je pense que c'est, c'est, il y a de la communication qu'il a faite. il a signifié, ça passe, on passe à autre chose. Mm Il était important mm, la presse française, la presse africaine en général, comment ils l'ont traité, comparativement avec la presse sénégalaise. est-ce que jàppoon ni tey Sonko dafa doon cokkaas maanaam provoquer la. non non c'est pour mu ah, li nga xam ni tey bëgg na ko ci ci seen diggante ñoom ñaar parce que Ousmane Sonko booy déglu discours am mosul d'accord eh, ci ni France àndee ak eh, réew bi nga xam ni moo di mooy Sénégal. non je veux dire xam nekkee sénégalais. nga toog dégg benn opposant ne il est temps que la France nous foute la paix. quelqu'un comme moi ça je dis alhamdulillah parce que Éric Zemmour. Uh-huh. moi j'adore Éric Zemmour tu sais pourquoi uh-huh. il aime son pays. Éric Zemmour aime la France même s'il est fils ou petit-fils d'émigrés il aime sa France natale et c'est génial. Uh-huh. j'adore les Français qui aiment la France. mais j'adore aussi les Sénégalais qui adorent le Sénégal. Mm-hmm, mm-hmm. On a le droit d'adorer notre pays, non? Par conséquent, Charles de Gaulle avait dit aux Américains, vous nous avez aidés, c'est bon, prenez vos affaires, partez de notre pays. Prenez vos soldats, partez. Mm-hmm. Le Sénégalais a le droit de dire, hey, la France, partez de chez nous. Il a pas de problème. Quand Ousmane Sonko parle ainsi à l'adresse de monsieur Macron, où est le mal? Quand on était en difficulté, quand quelqu'un oppressait les, les populations, quand on les massacrait, vous autres, vous étiez là,